Midi collectif ñoo lànk nee nañ séddaleem flyers mi nu tàmbali woon keroog gaawu tey jii dinañ ko wëyal te it kon bañu ñu ku leen ca jàpp ndax la ñuy def nee nañ kon dara nekku ca syndicat jàngalekat yi bootu ci GV xëye tey kon ab débrayage bi 10 heures di fukki waxtu ci suba jotee te it nee nañ kon ëllëg ci alxames ji du ñu faste xànc ak moromam grève générale la ñu amal bu ànd kon doxu ñaxtu Moustapha Diakhaté mi nu dàq ci APR nee na moom it ragalu loolu te it jëf la joo xam ni mbiri naxas a kandang la ko jàppee Abdoulaye Badji ma jiite commission ba ne moo def la tax ñu dàq ko ministre Mbaye Ndiaye ne kon dina ca doxi jéego reportage bi tey ñu jëmale ko ci xalaatu tuxum yàmbaa mi ñu daal di koy daganal ci mim réew ñu ëpp nag ci ñi taseeg suñu reporter nee na nu ànd na ca naam ne am na ñoo xam ni euh, gisuñu li nu mel li mbokk ak leneen bu ci noppee dinañ ci boole neeni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagle la aada cosaan mu gën caa fas kon IFAN mi lëkkaloog centre de danse urbaine taxawal The Dance Hall Bingel Jolof mi ànd kon OMG génne kon vidéo single bi ñu duppe woon Youssou Ndour di ko ca delloo njukkal kon tàkkal produit itam ca yëmbal la fekk baax ñoom it ay élection Miss yëmbal la ñuy waajal jàpp ko juróom-ñeenti fan ci weeru février atum 2020 bi nu dëgmal nataalu waxaaju Mansour mbay gan gi ak li yëglekaay yi xëy subaak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Kadeer Lo Abdoul Xaadar moo nekk ci machine bi. Mediculture ngeen ci and ak Serigne Saliou Seck mam ci mbekté ak contentement bu mak di len ko faram-fàcceel na ma len ko xëcce bopp ba rek lay duggé ngeen ci atal gi mu di kon euh, campagne de sensibilisation jëm kon ci walum euh, njëgul kon courant bi nga xam ci dañ ko yok ci mim rew lolé mo sabab boobaak légui kon ño lank collectif ba ñi ci botu di tebaka dal gannaaw doxi ñaxtu ñu doon amal nak ci séddaleem flyers la ñu mujjee gaaw biñ ko défé jàppoon nañ ci ñom fukk ak juroom euh, waye tay gi nenañ kon dañ koy daal di wëyal Mamadou Ndoye moom kenn la ci ñenu

nga xamante ne ñun suñu décision yi ñu jël nga xamante dañu fas yéene porter nga xamante ne ko defee citoyen daanu xam ñun li ñuy def nii lu tegu ñun de ba léegi ñu ngi suñu yoon daal ñun dañu jàpp ni li ñuy def c'est normal parce que barki dem bi nga xamante dañuy arrêté te man mii nii ma bokkoon ci quinze yi ñu arrêté euh, bi ñu demee dañu chargé woon ni ni dañu def trouble à l'ordre public te trouble à l'ordre public defe naan ku koy def dafay fekk nga taal magnétophone di perturber wala nga baara télé bi nit ñuy dox nga di leen yàqal seen ak ñi nga film yi nga xamante ne ñëpp gis nañ ko gis nañ ni ñu doon doon dox nank fekk ñiy jaay fëgg jaay gargot yi toog ak ñoom euh, waxtaan ak ñoom expliqué leen ñi nga xamante ni moo xew ci réew mi ci wàllu courant bi te tegu na ko ci yoon yoon yaakaar jàpp ne ak yi ñuy def ni jarul autorisation ndax bis bu nekk nga gis ay jaaykat ak waa militant APR daal di ñëw ci Sénégal yi di leen jox ay flyers explicatif di wane ne seen produit yu ñuy jaay nii lay deme ñun ci sens boobu nañu jëlee mbir mi ñu war nañ de toog ay mbokki sénégalais wan leen ne leen lii ñu ñun nii la ñuy doxee te si lii nañuy lii lañu expliqué courant bi bi ñu yokk te jaarul si yoon kàddu yi Mamadou Ndoye bokk kon ci collectif euh, ñoo lànk ñu wax ci wàllum njàng ak njàngale mi ñoom tamit foofee kon yëngoo ko yëngal am na fa tey jii euh, nar dem kon ba ëllëg sabab li moo di kon syndicat jàngalekat yi bootu ci G7 tey jii débrayage la ñu xëyee bi 10 euh, heures di fukki waxtu jotee ci suba dañoo dog kuur te ëllëg nee nañu duñu faste xànc ak sabab li moo di gouvernement bu Sénégal lépp li nu xaati moom ñoom la ñu bëgg moo di ñu jëfee ko ñu teewlu ci ñoon kon Sawru Sène bokk ci g nekki secrétaire secrétaire généralu SAEMS kenn la woon ci gani 911. tey tey tey lenn rek laa mën a jàpp ni wax dëgg gouvernement bi respecté na ko muy indemnité logement jàngalekat yi lim ci waxoon dina ko def def na ko donte bi ko defee ñun gis nañ ni aussi li ñu joxe ci main droite dañ ko jëlewaat ci main gauche ñu laaj leen ñu ne impôt la alors donc globalement loolu moo tax ñu ne il faudrait que ñun ñu jóg yëngatu woon gouvernement wu Sénégal wax dëgg accord yooyu nga xam ne dañ ko xaatimoon mais lu fekk que bi fay daalu ko loolu moo indi tey situation bi ñu commencé nii. Ah, Saourou euh, ñu gis ni fan yee daje ngeen ak euh, ministre fonction publique foofu noonu tamit ñu bëri njortoon na nii euh, dara dina fa tukkee ba ñu bañ àgg fii nii est que mën nga ñu wax dëgg-dëgg la xewoon ca ndaje ma. waaw dëgg rek moo neex yàlla foofu am na xëj na am na lu fa tukkee li fa tukkee mooy gouvernement Sénégal par le ministère de la fonction publique wan nañ ñu que même am na ay ay. Actu, yu nous yu ñu publier récemment mais problème bi que boo publier 25000 25 actes da ngay wax ni sur un total en stock de combien kenn nous ñaata ñoo fa nekk en souffrance beneen aspect bi mooy du loolu opération boobu mooy tax situation de guerre situation bi mu li koy jeexal li protocole d'accord bi wax muy dématérialisation des des procédures comme yegguñu ci dématérialisation des procédures ci wax rek mais stock boobu à chaque fois day reconstitué wu te loolu nag moo sonal jàngalekat parce que kenn mënul avancer kenn mënul am validation kenn mënul am intégration situation yooyu mais ñoo tax ñu yaakaar ni bu ñu dématérialiser les procédures. kàddu yi Saourou Sène nekk secrétaire généralu euh, SAEMS bokkit kon ci euh, G7 ngeen di wéy di déglu mi di Culture ci rajo ki King FM di moo jot ba tegal juróom-benn simili.

Papa Madiakhaté Sarr ginnaaw ay kàddu yi mu yëkkati jamono yi yëpp di dal ci kaw ñi nga xam ne laf bokkandool parti bi APR kii di Moustapha Diakhaté dàqee nañ ko ca Abdoulaye Badji mooy président commission discipline ñëpp a seetlu ne depuis des mois ah euh, taxawaayam àndul ak euh, mu waree taxaw ci biir parti boo xam ne bokk na est-ce que est-ce que loolu wax na ci famille wala ci association wala ci ci mbootaay wala situation amee commission mooy taxaw mooy seetu mooy waxtaan birom et mooy euh, jël décision. Moustapha Diakhaté moom mi ñu dàqee ci APR jàpp ne lii ay waxi kasaw kasaw la. ñooñu ay ay caaxaankat lañ ñooñu dañoo li ñuy wax provocation moom la ñuy def dañuy dañuy dañuy tooñ. man nag ñooñu amu seenu jot li ma am jot mooy li nga xam ne fas naa ko yéene taxawul muy mànkoo taxawu sunu APR initiative pour la refondation de l'alliance ci loolu laa nekk. mbay Ndiaye bokk ci commission de discipline bi te ñàkkoon a teew ci ndaje ma ñu dàqee mustafa jaxate ne dina ci dox ay jàmm. Euh, xoolaat mooy daal di ndey mbilli gi moom mi ñu dàkkee ci APR di dig daje askan wi ni ki ëllëg ci janoom ak taskatu xibaar yi ngir indi ay leeral la. ci mbir mi le jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr yegg si ci reportage bi tey nag ñu daal di koy jagleele ci euh, kàddu yi fi Seydi Gassama yëkkati woon ne dañoo war a daganal tuxum yàmba fii nii ci réew mi taxit rédaction King FM yabal seen ndaw ci mbeddi Ndakaaru yi ngir ñu laaj xalaatu askan wi jëmale ca ñooñee bu am ñoo xam ni si ànd nañ ci am na tamit ñoo xam ni lañu gis moo di ne xel xalaatutu lu ni mel reportage bu Aminata Ba wax daal di jóg ci mbirub yàmba ginnaaw bi Seydi Gassama bu Amnesty International yëkkatee ay kàddu ngir ñu daganal tux mi waa ji dina bu turam ñu dajee ak moom ca rond point Almadi jàpp ne xel xalaatul lu ni mel. man personnellement affaire légalisation yàmba loolu mënuma ci d' accord ah, pour plusieurs raisons d' abord yàmba drogue la suñ ko légaliser fii daf ça veut dire que ni ñu ngi légaliser drogue au Sénégal alors que ñu ngi xool nan la ñuy def pour wàññi les méfaits de la drogue ici au Sénégal. Sénégal. wuute lool xalaat ak kile ñu duppee cinquième président mi gis ne na lu war la. yamba dañ ko war a légaliser ñaax laa bi yàlla sax may ñu pour sax si kaw suuf te loo gis rek am na lu ko tax ñëw mun ñu légaliser sangara ak caga yi ba pare ñu ne ak xeesal bi ak mees yi ak produit chimique yoo xam ne day rey nit ñu ne du ñu légaliser yamba bi. chauffeur bi mel ni ku ci ànd waaye ak ay conditions. légaliser bi ça ça ne veut pas ne da ngay dugg si boutique bi jaama yamba romb si table bi jàmm yamba. comprends nga day am ay norme ñu ñu ñu réglementé ko spécial ay boutique yenn spécial yo xam dañ koy jaay muy boutique pharmacie yi yoo xam ni dañ lay jaay ben ki quoi ben soit ben joint comprends nga te buñ la koy dañ la koy jaay sur papier pièce d'identité bu n'importe qui lañ koy jaay yamba di drogue bo xam ne ndaw ñu ñoo ëpp ci liñ koy jëfandikoo mu leen di jural ay gàllankoor seen wér gu yaram jamono ji sénégal tollu di waxtaanee daganal am dit jaajëf Aminata Ba ci boobu boobule reportage di moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili ci aéroport international Blaise Diagne. mbàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ca réewum Burkina Faso foofu nag jàppaleen ni kon euh, fanwer ak juróom-benni civil ñoom lañ fa daal ya rey ca province bu euh, Samantenga mom nag ay ab groupe armé di kon ay nit yu ngànnaayu nekk tamit ay terroriste ñoo fa amal ak cong bu ñu sukkandikoo ca gouvernement ba ci ab bataaxal boo xam si daal di nañ koy fésal nee nañ kon gaa yooyee ngànnaayu dañoo daal di ci ñaari dëkk yi la di Nagraogo ak alamu ci noonu ci lan daal di amale ak congu jëmale ko ci euh, fanweer ak juróom-benni doomu aadama euh, daal di leen di euh, faat ba tax na kon réew ma di Burkina Faso dina amal kon ab deuil national 48 heures kon di ñaari fan ñu doore ko tey ji ci àllarba ji ba ëllëg ci alxames ji Gabon moom avocat bu avocat kon yu Brice Lacroix ak kon dañoo daal di kon porter plainte contre X maanaam dañoo plainte alaxam ca réewum France la loolu xewee sabab li moo di kon moom mi fi nekkoon euh, directeur de cabinet bu président Ali Bongo ak euh, rakam ji euh, dañ leen di def jamono ji li ñu xam si moo kon ay menace de mort ak di yëkkati ay ngànnaay di leen arto fat ñu jeexale ko kon ca réewum Nigéria foofee tamit ay jihadiste ñoo fa def musiba waaye bi la yoon dañ koo jëmale ci nitu ko diine ndax koo xam si kon dafa bokk kon ca ñi nga xam si ak kuréel la kuréel goo xam si ay chrétien ñoo ca daal di bootu ab association association la bu mag bu nekk foofee ca réew ma moom nag la gars yi daal di euh, doon fexeel ba ca mujjantal ga mujj noon koo faat jamono ji itam loolee jur na coow ca moomu la réew te it kon gars yi ñu ngi ca ubbi l'enquête ba teg loxo ña def ñaawteef bu ni mel li mbokk yi tënk la woon kon ci xibaar yi bàyyeekoo ci euh, dendoo Afrique ñu jàll ci tàggat yaram. bàkk boobee kon euh, xibaaru tàggat yaram yi lay daal di euh, yëgle ak ñun ci studio bi Papa jaxate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou sekk di nuyu bépp auditeur bu rajo ki King FM. wàllum basketball lañ koy tàmbalee ak Porfirio mi nga xam si mooy tàggat gaynde yu góor ni gaynde yu jigéen yi moom Tafa Gueye moo fa nekk. moom Tafa Gueye mi nga xam ne it moo doon directeur technique national démb la daal di fësal ñi nga xam ne ñoom ñooy tàggat équipe nationale yu Sénégal yu basketball yi ci janoom ak taskatu xibaar yi di dikkaat ci leeral yi ak euh, ndaje moomee ak euh, Serigne Saliou Seck gannaaw lu weesu tuuti ñaari at bi mu jugee ci banwu gaynde yu góor yi ci wàllum basketball Porfirio Fisac de Diego dellu si waat na mu nekk tànneef goo xam si xarañteem ak expérience am moo ko ko may bu ñu sukkasndikoo ci mustapha gay mi nekk directeur technique national bu basketball y a l'enjeu de l'afro basket 2021 tey jii enjeu bi mooy afro basket 2021 bi nga xam ne dañoo bëgg dem jëli ko loolu nag bu ñu bëggee mu antu faaw ñu am entraîneur bu xarañ loolu moo tax ñu tànn Porfirio mi nga xam min équipe bi min na basket Afrique te am nañu yaakaar ne dina def lu gën la mu defoon ak gaynde yu góor yi bu leen fàtte ne moom mooy ñetteeli entraîneur bi gën xarañ ca Espagne ak clubam bi di Saragossa mi nga xam ne Real Madrid ak Barça rek ñoo leen jiitu. ci wàllu équipe nationale bu jigéen ñi mustapha gay li mu le moo di ne du def benn yoon tànneef jëmale ko ci wàllum at. l'objectif les filles c'est d'avoir le meilleur résultat possible. mbëbër li ci jigéen ñi mooy am résultat bu gën yi ñu amoon waxtu wi nag bu jotee su may tànn joueuses yi du ma xool ci ak mu ñu am damay jël ñi ay képp. on prendra les meilleures joueuses aptes à aller jouer pour la sélection. gannaaw bi mu fësalee ñiy tàggat équipe nationale yi ci wàllum basketball moom mi nekk yees directeur technique national di Moustapha gay mi ngi wéy di leeral ne amul benn entraîneur boo xam ni dañ lay xaatimal contrat waaye ñëpp ay pisiste la ñuy doon. ki fi nekkoon euh, basketteur euh, ci góor ñi di Viendoy Ndoye moom ànd na ci tànneef gi nga xam ne euh, directeur technique national bi di Moustapha Gaye def na ko. boo rafetlu it bu baax euh, Boniface Ndong mi nga xam ne euh, léegi bokk na ci stafu équipe nationale basket ci góor ñi ñu teewlu viandoo yi daanaka ci jigéen ñi Tafa li ñu doon xalaat moom la def c'est-à-dire dafay dafay nekk ci équipe bi mooy nekk entraîneur titulaire en attendant def le cumul maintenant gis nañ ne ne El Diop dafa dellu saat parce que elage Diop yàgg na nekk adjoint et puis elage il est expérimenté ak euh, Mborika boo xoolee Mborika ci cinq dernières années yi juróomi at yi passé nii daanaka liggéey na liggéey bu rafet fële ci Dakar Université Club gagné na fa ay trophées def naa pratiquement ci cinq dernières années yi ci jigéen ñi mooy entraîneur bi ëpp lu mu gagné ci ay titres donc ak Khady Diop Khady Diop moom continuité la comme que nee nañ équipe nationale jigéen donc euh, man gëm naa ne euh, peut-être attelage boobu moom euh, mën nañ ci am satisfaction yu baax ndax Tafa Gueye il est expérimenté El Hadj Diop expérimenté Mborika tamit expérimenté ak Khady Diop mi nga xam ne ne mi ngi nekk ci ci attelage bi depuis ay quelques années maintenant boo xoolee ci góor ñi Euh, Porfirio lañ delloose Porfirio daanaka xam na kër gi yag na ax gars pa bi dañ ko ci continuer tamit xam nga mom ci entraîneur yu jeunes la donc euh, daanaka euh, expérience mi ngi ñew et puis bax na ci sax maintenant li ci ëpp importance ci ñaari attelage bo xolé moy arrivé wu Boniface parce que Boniface ni mu ñëwé ci goor ñi fay permettre sérénité day indi dal ci goor ñi parce que Boniface xam na booy yi di basket boy yi di basket jox nañ ko ci dafa gay def ko ci neen Boniface entraîneur adjoint la fële ci Denver Nuggets ci NBA mais boo xoolee dina jouer tamit beneen rôle en tant que psychologue di dalal xelu xale yi di waxtaan ak ñoom parce que comme que booy jox nañ ko cër euh, man gëm naa ne am naa ci njort bu rafet daal am naa ci njort bu rafet léegi dañuy toog xaar rek bàyyi lépp ci loxo yàlla xaar lan lay joxe. xaar lan lay joxe ñoom équipe nationale bu Sénégal basket ci góor ñi xam nañu sax ñan la ñuy bokkal poule ci éliminatoire afro basket deux mille vingt et un yi Sénégal mu ngi ci groupe euh, bi ànd ci ak Angola euh, Mozambique ak Kenya. éliminatoire mondial 2022 pays yi ci war bokk ci déndu Afrique Sénégal xam na fa muy bokk te xam na ña mu war a dajeel. groupe H la Sénégal dal di nekk ànd ceeg Namibie Togo ak kongo muy équipe yoo xam ne eh, Sénégal miin na leen bu baax eh, poul bi nag eh, ñu bëri ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc wàllum football jàpp nañu ne Sénégal war na ca mën a génn ñu kenn ñu déglu kenn ci ñoom du Ndofène Fall ci micro King FM. mën nañoo jàpp ni mënoon nañoo am lu gën a jafe euh, nit nag boo bëreewul ak nit ba daan ko euh, mënuloo commencé di wax ni maa ko mën waaye bu ñu jàppee ci li nga xam ni moom la ñu mën a xayma ci doole yi nga xam ni ñoo jekkal seen taxawaay fi mu ne adversaire yi ñu am wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla Sénégal mën leen ëpp doole yaakaar naa ni bu ñu defee li ci war gëm naa ni danañ ko def Sénégal war naa mën a génn waajal nag maintenant compétition parce que compétition bi day dafa am lu muy waajal parce que fukk ciy génn fukk yooyu di génn euh, nekk juróom juróomi match juróomi match yooyu nag ku ci nekk qualification ngay joué mooy dóor toog bu boobaa it dama defe ni match yi ñu nar def di match éliminatoire yi dañuy waajal pour ñu dem ci compétition yooyu parce que demaat coupe du monde farata la ci équipe bu Sénégal bi fii mu nekk te nit ñëpp loolu la ñuy xaar ci Sénégal mooy muy dem coupe du monde di fa dellu parce que loolu mooy indi koom-koom mooy indi it doole. Eh, jàpp leen ci bëccëg bu ndëkk bu njëkk bu éliminatoire yooyee ñu ngi ko fas yéene amal ci weeru octobre atum gi ñu nekk ci yeneen group yi it lañ ci mën a jàpp mooy groupe yi gën a saf ci ni ñu ko waxee ci groupe D bi Cameroun Côte d'Ivoire ak Mozambique ak Malawi ñoom ñoo ca nekk groupe G bi Ghana Afrique du Sud ñoo ca ànd ak Zimbabwe ak Éthiopie ci groupe I bi moom it Maroc moo fa nekk ànd ceeg ñaari Guinée yi mu di Guinée Bissau Guinée Conakry Soudan a Google grupa football la ñuy jeexalee bile yoon ca tugal la ñuy utali lu ñu mën a jàpp tey ci àllarba ji. ca France euh, affiche uk final coupe de la ligue bi tey dinañ ko xam ginnaaw ñaareelu demi-finale bi diggante Reims mi dalal Paris Saint-Germain lay doon ku ci am ndam danga nga daje ak final Lyon bi nga xam ne démb moo ca njëkk a qualifié ginnaaw ba mu daane euh, Lille ca tiro but yi euh, ñett ñeent ci ñett ba temps réglementaire bi jeexee ku nekk ñaari but nga dugal ci say kangi morom ca Angleterre moom tey daanu fukk ak ñeenteeli bëccëg bu Premier League bi ak ay jongante yu ci mel ne Leicester euh, West Ham Tottenham di dalal euh, euh, de finale Coupe du Roi ci Espagne moom daanu ko ubbi ni ki tey ji Ibiza dina dalal FC Barcelone Real Madrid dem fekki ji Unionista de Salamanca ci quart de finale Coupe d'Italie yi tey ji daanu ko wëyal bu ngoon juróom-ñaari waxtu ci ngoon toftale ñeent fukki simili ak juróom Juventus Turin dina tase ak AS Rome euh, lañu ko yeggali ay bés bi ñu jëm ak AC Milan Torino ak it Inter Milan Fiorentina démb Naples moo njëkk a qualifié ñooñu Kalidou yi doo éliminé Lazio mi yoroon raaya gi ginnaaw ñu leen daanee benn bal ci dara Serigne Saliou fii la ñu yem tey ci xibaaru tàggat yaram. ngërëm ñeel na la Papa Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci xibaaru caada dañ koy tàmbalee wax ci li ñu duppee danse africaine loole moo sabab kon ni kiy démb ah, ñu daal di ah, jébbal directeur cabinet bu jëwriñ ci sàll wàllum wér gi yaram mbir moo xam si daa jëm ca wàll woowee ñi ko daal di doon organiser nag ñoo di kon ah, waa centre de danse urbaine lëkkaloo ci ak waa IFAN ñu duppee nag mbir mi The Dance Hall woon na ndaje ma Mamadou Sow téeméer ak fukk ak benn page moom mooy lim bi nga xam ne moom la rapport bi ñu jot a démb siiwal boobee rapport nag day wax rek si naka la ñu mën a def ba codifier lii di pecc mi si biir Afrique maanaam teg si ay charte Mariama Touré mooy fondatrice bu centre de danse bi ñu duppee The Dance Soul. rapport bi nga xamante ne génnee nañ ko tey lan moo tax ñu génnee ko mooy suñu fecc yi fii ci biir Afrique fecc yi nga xamante ne moom euh, lañ ñu yeree tey dañu gis ni ñu bëri ñu ngi ñëw ci suñuy dëkk di ko jàng di demaat di ko jàngale préserver manam penc li nga xamantene ne suñu aada euh, nan lañuy def pour xam France wala nga jogé Amérique nga ñëw fi Sénégal euh, jàng sabab la lool ñu xalaat li nga xamantene moy codification moy bind li nga xamantene euh, suñuy ñu koy nga képp bëgg nga ko directeur de cabinet bu ministère de la culture mi fa nga fii ci Afrique rawatina ci Sénégal Warna, na ñu codifier leen ba ëllëgati si biir les générations yi ñëw am danse bu nekk nu ñu koy defee ak lu ko tax a jóg ak fu mu jëm donc lu jaadu la moo taxoon ñu tey ñëwoon tey représenter le ministre de la culture et de la communication monsieur Abdoulaye Diop. gannaaw yooyu la appui Mariama Touré di sàkku ba léegi si ministre bi ñu fexe appliquer li nga xam rapport bi mom la jot a lan la xaar ci ñoom simplement ñu jël recommandation yi nga xamante ne bind nañ ko ci rapport bi daal di def en sorte que euh, ñu mun ko ñu am ay kuréel yoo xamante ne teg nañ ko fii ay institut national comme li ñuy def langue nationale yi ñu mën ko def ak fecc bi ndax ñu mën a topp recommandation yi nga xamante ne moom la ñu joxee ci biir rapport bi ci jeextal boobu la ndaje nag ki fa teewaloon jëwriñ bi yor wàllum aada ak cosaan jot na rek xam leen ni lii di seen bëbët dina ko àggale si ministre bi jaajëf du Sow ci euh, nettali boobu leen ndaje keneen a ngi koo xam ni moom it génne na ay yëf Bingel Jolof la tudd waaye da ca ànd ak woykat bi bile di ji ab euh, vidéo single bi ñu génne woon nag duppee ko hommage à Youssou Ndour ñoom artiste bi nag li mu daal di xamle moo di ne da ciy delloo njukkal ki nga xam si moo di roi di mbalax ndax référence la ci ñoom teyit it euh, réew mi yëpp ko war a delloo njukkal ñu teewlu ko moom Bingel Jolof gannaaw jokkoom ak King FM. bëggoon rendre hommage Youssou Ndour bu yàgg mais euh, moom dafa dëkk Touba am ku ma boole ak moom bi mu jógee Touba ñëw ma logé ko fi sama kër mu ñëw expliqué ma projet bi ah ma ne ko yow dafa mel moo moo ñu boole bëgg-bëgg parce que man Youssou dama koy bëggee Youssou dafa nekk sama sama sama idole añ lu may wax sama carrière musicale man daal Youssou Ndour laay roy nga ñëw tey jii vraiment expliqué ma projet bi mel nii dama ci sawar nga ñëw jox ma proposition jox ma texte beeg yëpp ah, ma xool ma xool xool lépp def arrangement yi ma ñëw dindi euh, refrain bi ma joxoon kër yi yëpp dindi ko def euh, defal yi ba ko nañ ko def nii mu nekk titre boo xam xam vraiment euh, dañ ciy rendre hommage ki nga xam ne dafa jara rendre hommage muy suñu tonton Youssouf euh, nekk koo xam ne nii comme ni ma la wax idole nekk na ko jara delloo njukkal vraiment loolu moo nekk projet mu nekk projet boo xam ne vraiment dama ci ànd ak benn jotaay bu njëkk muy OMG ñu def featuring bi mais morceau bi vraiment ñu ko jagle ki nga xam ne mooy le ki nga xam ne nii moom mooy lëm daanaan ki nga xam ne ni moom la sénégalais bëgg Europe foo mun di dem moom la bëggee ñun moom la ñuy sax ay ndaw lañu waaye ci ay tànkam la nekk ay ndaw lañu waaye moom la ñu vraiment kàddu yi Bingel Jolof tàkkal Prod tamit ab association la bu nekk fële ca diwaanu yëmbal di yëngu ci wàllum aada cosaan ñoom nag jamono ji li ñuy waajal moo di élection Miss yëmbal juróom-ñeenti fan ci weeru février atum 2020 bi nu dëgmal lañ ko daldi di euh, jàpp li ñu daal di euh, xam ne nag bu ñu sukkandikoo ci ki yore wàllum euh, affaire administrative yi boobu boobule kuréel moo di ki daal di jël boobule élection dina représenter yëmbal fépp foo xam si dinañ fa amale émission ñu teelu ko kon moom jibril Thiam bu Takkal Prod gannaaw jokkoom ak King FM. événement bi ñu ko le 9 février dimanche le 9 février 2020 mi doon une élection miss yi nga xam ci compétition lay doon filles nga xam ne ci ñoom ñoo nekk ñoom ñoo war a compétir jour yi waaw li tax aussi ñu date bi parce que dañ projet bi c'est un projet révolutionnaire C'est tax mu doon projet révolutionnaire parce que dañu xool constaté depuis pas mal d'années yëmbal mosul am une organisation pareille et puis les filles aussi di ko revendiquer de part et donc ñu ne woon cette cette année ci Takal Prod puisque

dafa euh, dañu nekk ci monde entrepreneuriat et puis jigéen yi nga xam ne si ñoom war nañ ci mën a am doole bu baax a baax a baax daanaka am na seen baat fu mu yeggul ak seen kattan seen mën-mën fu mu yeggul alors ñu décidé woon à partir du projet aussi ñu jéem a xool naka lañ ciy def ba mën leen a former ci leadership développement personnel entrepreneuriat aussi ba ku si nekk boo juñ jugee ci ci élection bi dina mën a am sa sa sa projet bopp ñu suivre la aussi ci démarche euh, démarche de compagnie financière bi aussi projet bu jeexee ku si nekk mën a mën a amal sa bopp benn ci benn affaire boo jàpp en tant que entrepreneur donc yooyu aussi moo nekk objectif yi nga xam ne si teg nañ ko ci ci ci projet bi di si woo ñëpp. mu nekkoon kàddu yi Djibril Thiam yore lépp luy wàllum affaire administrative ci biir euh, Takal Prod Midi Culture ñu jàll ci natal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di defal nataalu Hadj Mansour mbay moom nag mooy njiitul communicateur traditionnel yi nekk ci réewum Sénégal euh, waajuram bu góor di Amadou Mbaye Maodo waajuram bu jigéen di Ngoone Tall Ñang moom nag euh, turandoo Serigne Mansour si radiyallahu taala anhum la barki Dembo Ndiaye rek lañ ko duppee rond-point BCEAO ba nekk ca Médina Fatou Sow le maître du verbe fécond dit le communicateur traditionnel yi dañ koy l'homme aux trois dimensions ku dégg tur sam xel du dem ci kenn Mansour Mbaye li Cheikh Ahmed Tidiane bëgg ci tarixa bi mhm. wax naa li sama baay li mu bëgg tarixa bi mhm. wax naa it yow itam ni nga mel ci diine ji mhm. ak ci lislaam bi sëñ Babacar ñu ko waa maag yow fanaan góor gi bi mu amee fukki at lañ ko jox turandoowam Serigne Mansour Sy radiyallahu anhu mu def ca dënn ba alxuraan jàngal ko lu bari ci wàllum diine nekkoon na itam ab ndongo daaxa ca dëkk bii di paate xewee nekk ci diggante bayaax ak mbooroo ba mu jógee ca njàngum alxuraan ma la dem gëstu ji nasaraan bi ca wetu nijaayam Amadou Abdoulaye Seck mu amee fa diplôme certificat d'études primaires fa la yamale njàngam dugg ci métiem commerçant ci société bu mag fii ci Sénégal ba ci atum 1947 nag la ko turandoowam yóbbu ca wetu Lamine yi nekkoon ab leader politique bu mag ca tàng boobu fa la sooboo nag ci wàllum politique ñu jagleel ko ay post yu bari ci réew réew mi ca jamono ab employé municipal ca mairie bu ndakaaru ca la xamante ak Amadou Babacar Sarr mi nekkoon jamono yooyu ministre ba ni mu ci atum 1958 attaché de cabinet nekkoon na itam ministère de la jeunesse ministère du travail ak ministère des sports ci atum 1963 Nak la ko Aliou sen ma ministère de l'information waxee kàddu ta place n'est pas sur une chaise derrière un bureau ho mais à la radio loolee mu ko wax di kàddu yu wér moo waxal mu tàmbalee ca rajo sénégalaise ba daan fa def émission bi di Sénégal ndemb El Hadj mbay bokk na itam ci ndaanaan yi yor micro central ci xew-xew yu mag yi am ci réew mi li ci mel ni fête de l'indépendance yi xew-xewu diine làmb yi tam kuñ ci ràññee la communicateur traditionnel bi mu nekk ca na muy communiquer ak doomu aadama yi teega ak wolof gu set gi voix ba doon benn ci Sénégal sargal nañ ko sargal yu bari biñ ko mujjee jagleel nag ca Médina ci rond-point BCEAO ba duppee ko place publique El Hadj Mansour Mbaye mu nekk mbégte mu rëy ci askanu Sénégal bi yépp Hadj Mansour mbay yàlla na jàmmam yàgg jaajëf Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy danal dalal kon waa daan Ndiaye Rose moom nag doom la ci ndem si yàlla duudu Ndiaye Coumba Rose daal dinay euh, génne lu bees ab single la sax boo xam si da cay daal di delloo njukkal waaye juróom yi nga xam si dafee daal di bàyyeekoo moom Waadaan njaay Rose laaj ak tontu dox na digganteem ak Ndeye Mati Dieng Waadaan Ndiaye Rose ñoo ngi lay nuyu. te yow lañ dalal ci Midi Culture. waaw macha allah ma rafetlu ko lool. waa daan keroog bi nga yëgee ni Grand Théâtre euh, du Ndiaye Coumba Rose la ñu ko tuddee euh, loo yëg. waa ku ne xam ne ni fu mu toll nii son excellence monsieur Macky Sall. décret génn na que ni Grand léegi tur bi El Hadj Doudou Ndiaye lay wuyoo famille ñi ngi waxtaan suñu biir xool nan la mën a nekkee benn kàddu Sénégal yëpp ñëw àndoon ak ñun ñu remercier Macky mais kontaan nañu trop ci nouvelle bi. yan jéego ngeen teg ngir loolu. instant bi nii ñu ngi si ay répétitions yu am solo. di woo artistes yu Sénégal yëpp waaye nag képp ku nekkul artiste ndax El Hadj Doudou Ndiaye pour Sénégal yëpp la pour africain yëpp lañ. grand théâtre yaakaar naa ne moo gën a rëy ci théâtre Afrique de l'Ouest kon bu ñu ko delloo waatee Doudou Ndiaye Coumba Rose kon yaakaar naa ne toll na noonu. yéen tamit famille bi ngeen andi waa daan Coumba Rose maa ko génne ak waa sunu Ndiaye Rose ñu sargal ci sama papa Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose son la boo xam ni muy voix bi muy percussion yi yëpp dafay wax ci du Ndiaye Coumba Rose affaire bu musul am lan nga ci wax dañu ne tam tambracakin tambracakin ndacc bin bin man ni wura bin bin daan tambracakin gi gim dasan ngacc kinn te kim seen gi gim tasan ngat ci kin ba kin kin pak gin manam lolu moy alhaji dun jaay kum boros fimi teud yalla suuf sedd ci kawam lolu la teug ken musu gis lu mel non alhaji rose deud aduna yow wa daan rose nga ya nara porter drapeau bi naka nga nara def pour yegali liggey bi nga xamantene sa way jur bi tambali won nako ba ak fi wa li meuna def gannaaw yalla ak yonenti bi ak sama papa mi mako nangul dama ko delo wat la famille ñu nak famille bi ñoy and wa sunu rose ak ñep ah def ni sama papa don def rek tal ñep sama loxo ñu daal muy gunge sama mission mooy wone Alaaji Doudou Ndiaye Coumba parce que ku ne xam na ni il n'est plus waaye mi ngi fi ndax ku am njaboot deewoo kon sama mission man mooy indi waat Doudou Ndiaye mooy wone waat Doudou Ndiaye Coumba Rose ba sénégalais xam ni dem na waaye mi ngi fi seen famille dafa am ay jigéen yuy tëgg seen papa moom moo leen ci initié woon lu tax ñooñu duñ leen gis yenn saa yi ñuy fës ci yenn programme yi ñi ngi fi waaye xam nga ñu ci gën a mag ndeysaan tëggatuñu waaye seen doom yaa ngi fi ba léegi euh, boo duggee ci sama site wala page def waa daan Coumba Rose Ndiaye la di nga gis jigéen ñi ak góor ñi ñëpp di tëgg dëgg ñoom ñi ngi fi tëgg teg waaye ku ñu xam ni léegi ay danoo jëm xaw jëm mag tuuti waaye ñoom seen i njaboot seen i doomi jigéen ñi ngi ci groupe bi tëgg sabar dem na léegi ba nekk métier ñu bari nag wutal ko muy géwél géer ñeneen ak ñeneen ba ay tubaab est ce que yénn saa dina leen dal ngeen toog dégg nit mu tëgg ngeen am lu leen metti parce que li mu tëgg baaxul tëgg balaa nga koy commencé ak fépp fooy munti tëggee war ngaa mën a tàggu mbaar tàggu mbaar mooy léemu dëkk bi ngay tëggee ngeen rab bi fa dëkk ba pare daal di aar sa bopp kon du rek ah ah parce que sabar bi moo làmboo loolu teru bëy ku ne xam ni dafa bokk ci rab bant bi bantu dimb la ku ne xam ni dimb fa la rab yi di fréquenté ci digg àll bi sump bi koy tëgg muy galañ yaakaar naa ni sump wala daqaar rax na tuuti ra kon boo koy tëgg war ngaa léemu mooy tàggu mbaar tëgg moom boo ko xamulee liñ ci bëgg doo ko ci am est ko que xam nga loolu toppatoo sabar yi di for sabar yi di leen diw ba ñu màndi ak diw tiir ay mag yu ci mel ni Doudou Ndiaye Coumba Rose gis nañ bërki démb Alaaji Mansour mbay ñu tuddee ko place fee ca Médina loolu noo ko gisee yow mag yi léegi ñu tàmbali leen di leen jox seen gëdd di leen sargal Alaaji Mansour Mbaye yàlla yàlla guddal fanam yokk ko wér ku ñu soxla la barki démb man maa ngi fa woon moom mérité na loolu da koo wax waa daan kon ñoo ngi lay jaajëfal yow lañ dalaloon tey ci Midi Culture ngay percussionniste bokk ci famille Doudou Ndiaye kon maa ngi leen di waaye yéen ñëpp di xam ni kontaan naa ci yéen de li si yéene yi ak Serigne Saliou Seck waxambaane sukkar bi aka wóoyale bakkani jàmbur leneen mën na ko caa fekk ndax nag kenn mënta yendu ci njombe fanaan ci kaasa ci kaso ngay mujjee fanaani kaso di rakki bàmmeel bi ngay toog jàpp ne àdduna dafa tukki fekk booba sa bos rek a làqu ndax jant banu la làq lu ni mel moo dal Samba Ardo Dia Sow di waa ji rayoon Faatumata Maxtaan Njaay taxit daanaka yéene kaay yu nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu baaxe xibaar bi ubbil source a journal bi ne naam ne mbokki Faatumata Maxtaan Njaay du nu mën a wanaasu seen métit woowe waaye nag jamono ji pomp nañ seeni rangoñ sabab li moo di tribunal tëj na Samba Sow ndam boole ca liggéey bu mu soñu la bañ réew mi quotidien àdduna ju tukki kay moo dal ci kaw sàmba Sow waaye nag journal bi nee na loolee taxul ba tey mbokki Fatoumata Makhtar kontaan ndax rakkam di Papa Makhtar Ndiaye moom la nu seen ci enquête yéen kaay mu fay xamle ni sàmba Sow ñaari jigéen yi muy tudd di bàjjanam Fatou Sow ak xaritam di Awa Niang danoo war a leeral la tax mu leen di tudd le quotidien ne li leer te wóor moo di àttekat bi moom nee na Samba Sow moo rey Fatoumata Makhtar ba tax li des ci dundam ci biir kaso bi la koy defee keneen kuy des ba tey ci biir kaso bi moo di Guy Marie Sagna le cour d'appel bu ndakaaru lankal nan ko bàyyi négandiku gi ko ay avocat am doon sàkkul ba noppi nag nangul ko Fallou Galass Seck ak Ousmane Sarr ba tax ñoom ñibbi nañ seeni kër Seydi ma mi fi waxoon toj penc wi ne am nañ lu leen metti ci Guy Marius Sagna mi ñu téye ca biir kaso ba waaye nag njiitul Amnesty Sénégal nee na loole bettu leen ndax nguur gi ci boppam mooy jëfanteek Guy Marius Sagna maître Moussa Sarr di avocat bi koy layool ne duñu xaddi benn yoon ci la tribune la ko xamle avocat bi yokku ca ne ca cour suprême lan jëme mbir ma mbirum Moustapha Diakhaté daanaka yéen a kaay yi ñu xëyandool ñoom ñëpp xëy di ci wax l'observateur las les échos vox populi enquête le quotidien walfu quotidien libération la tribune ba ci le soleil national ubbi l'observateur journal uri angul corniche bi ne Moustapha Diakhaté fi mu taxawale man koo taxaw ak fi nu ko dàqee ci APR daanaka simila ak saala yéeni futur média bi yokku ci ne tey laa leen di wax dëgg-dëgg la tax ñu dàq Moustapha Diakhaté ci biir APR nday mbil gi di njiitul APR di président Macky ca Londres ga nekk fa la composé Moustapha Diakhaté ndax nag lu ëpp tuuru teyit lu jiitu loolu yéenekaay bi nee na président Macky jotoon na tee waxtaan ak Mahammed Boun Abdallah Dionne ak Mahmoud Saleh Le Quotidien li wóor leer moo di dàquk Moustapha Diakhaté ci biir APR commission de discipline bi ab santaane rekk la ca jëfee te ka leen ko sant du kenn ku dul président Macky Sall Abdoulaye Badjine la tax ñu dàq Moustapha Diakhaté moo ko def ca enquête yéenekaay moom Moustapha Diakhaté li mu fa xamle moo di ne li nu ko àdduna dina dox ba mu yegg président Macky Sall fi nu yegg tey te nag ëllëg ci alxames ji dina wax ba ñépp dégg ko Les Échos ne moom Moustapha Diakhaté la mu jot a wax bokk na ci li nu ko dàq yëgalu ko yaramam waaye nag yéenekaay bi nee na ndox mu sedd man na caa am ndax nag mbay Ndiaye bokk ci commission de discipline bi nee na yëgul fu nu ko dàqee te it waxtaan dina amaat ci seen biir su saane ba fii ak li man di am moo di Moustapha Diakhaté dafa taxawal mànkoo taxaw APR waa APR mànkoo ci seen biir dàq ko ñu mànkoo ñun riir utali Touba Mboul Vox Populi ne ak ñetti boroom dëkk ya ko wër ñoo ànd dem seeti sous-préfet ba ngir ñu lëj mbët ay mbiram waaye nag lañ ca gis moo di ne maire ba di Mansour Niang njublang na fa lu jege juróomi million ci xaalisu CFA ba yóbbu ko këram mu nekkoon Cosnas lëf ci li yëglekaay yi xëyee subaak tey wàllu musique la ñuy jeexalee jotaayu Midi Culture tey Wozkali lañ leen andil ci woy bi mu duppee li may tere nelaw morceau la bu mu génnee juróom-ñetti fan ci weeru août atum 2014 ñu teewlu bàyyi gëmm ci bëtam weer ak la ko topp gisuma mag moo yaay naan ma yaay naan ma Legi mag dellu si may xaa xaritu gaay ma déy la li may tere di soo ma wakla la mi mbokk yi kon foofee la ñuy yem ak yéen ci midi culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di jaajëfal bu baax a baax ñu nu doon may nopp ci 99 point 4 ak ñi doon topp ci 3w point king fm point sn cant ngërëm ñeel na bu baax a baax kadeerlu Abdoul Xaadir mi nekkoon ci ah, machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kàddu gi production Lamine Ndiaye digital ah, Yacine Pouy léegi-léegi kon alaaji Baye Cheikh mooy ñëw wëyal king feeling lu mooy loloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation midi ba mu yem mbokk yi yàlla na jàmm yàgg